faut que ñi ñu jàkkaar lool wax ñu ban waaso mooy Guelwaar ak fan la ñu nekk ci senegal ak ñaata lañu ci lim nuñ mel il faut ñu wax ñu ko parce que man maa ngi doog a dégg nag ethnie bu tudd Guelwaar au senegal maa ngi koy doog a dégg kon ñu ngi leen di féliciter ci effort boobu di wax ni di ngeen am suñu soutien total et absolu dans cette lutte parce que dafa am yoo xam ne xeexu principe la mënoon nañ ne lii waruñoo tardel ñoom mënoon nañ ne lii waruñoo tardel kon nañu bàyyi gëlawaar bi rek ñu jox ñu suñu récépissé léegi ñu dem defi suñu politique mais dafa am xeex yoo xam ne c'est des combats de principe te dafa am solo parce que benn benn yooyu ngay bàyyi mooy tax nit ki gën a mën a dëkk ci li ñuy wax abus de pouvoir mooy jaay doole gu tegul ci yoon jaay doole gu tegul ci yoon nag mooy li ñu gën a wut a mbargale mandargale nguur gi fi ne nguur goo xam ne suba ba ngoon jot yow waroo tudd nii nii nga war a tudd gëm naa ni senegal nañ dem ba nit dina am doom tuddee ko ma xujja ñu ne ko déedéet ma xujja moom amoo droit tuddee ko fi foog mu tudd rek Macky wala massal wala xaw ma lan foofu lañ jëm wala nit ne damay organiser wu soxlawu ma xaalis bu jóge ci bitim réew soxlawu ma ay lobby yu ma jox sénégalais yi ñu bëgg nañu dajal lu ñu am joxe nga ne du fi amee kenn du cotiser dem naa dañ suñu logique woon nag dinañ dem ba ne daayira yi dootuñu cotiser jàkka yi dootuñu cotiser keneen dootul cotiser ay sénégalais yu daje bokk seeni mbir seen statut les ressources du parti sont exclusivement ci cotisations et ak ci dons yi ñi ñi cotisations, ne dañuy cotiser nga ne Nous du fi abus de pouvoir wala nga xëy ne opposition d'autres am Sénégal démocratie bu Sénégal nga xam ne balaa indépendance démocratie la woon ñu ay sénégalais don jak jamarlo ci politique depuis jamono ñom galandu histoire nga fi ñom Lamine Gueye Senghor ñom galandu Blaise Diagne amagu ñu indépendance di dox di dox ba indépendance parti unique am fi ñu dox dox dox nit ñi xex di xex di xex clandestinité ak yeneen ak yeneen ba Senghor bi fi ne xamni lolu ni mënatul wéy mu ubbi ne démocratie légui bien que c'était limité ba mujj ñu démocratie intégrale après les indépendances amul combat sa ndax da parti ay appareil cacher ton jeu ba la faxas la nit directeur général ministre ba ministre d'État premier ministre ba président l'Assemblée nationale ban combat le mené tay fi dans les grands combats démocratiques de ce pays musul mené combat situation am sénégalais yi changement tu étais le mieux embusqué nga jël rewmi mais je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ñàkk humilité weesuwul loolu ak ñàkk xam-xam nak ndax ko xam ko xam touti peuple sénégalais di nga xam du peuple bu ñuy tënk ba wara mëna am ben parti unique nga xamne bi jël indépendance doole gi mu amon. téwul ko doon avons clandestinité di yow nga ba siècle 2012 nga taxaw naan je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ci gis bu il fera face à l'une des plus grandes forces d'opposition de l'histoire du Sénégal parce que personne ne peut réduire les Sénégalais. Réduire l'opposition, mais réduire les Sénégalais. Le peuple sénégalais a besoin de contradictions. Il a besoin de forces politiques qui s'opposent. De façon à ce ak kuy nekk ci kujje que naan ko d'accorduma loolu bis bu dañee ci réew mi au la ñu war ko def de manière civilisée pour nous civiliser il faut que acteurs soit un acteurs civilisés mais boo mes un acteur boo je ne connais na mënul nekk lu civilisé te boo yaree yëkkati sa yat nag boo yàggee yëkkati sa yat di nga toll foo xam ne yat ci yow lay dal kon lii da ko illus benn illustration la rek ci lu ñu mën a lim ci li fi xew 2012 ak léegi tëjaate génn ci réew mi dàq ci liggéey complot luñu wax nga ne lii du fi amee te yow ca jamono jooju say ñooñ lu leen neex ñu def ku ci randal alu réew mi sax ay milliards rapport yaa ngi fi fees dell ñu ne kenn du laal parce que nag ci buur ba nga ne foog ngeen ni am réew nañ ko téye ci injustice bu tànn jotee nag nga war a tànn ay nit laa wax ay nit nit ñu nite parce que réew ay nit a koy yor gis nga pouvoir autorité

premier élément mooy yow si bopp nga doon exemple ci comportement bi ngay comporté wu ba pare won ko ni lii li nga lu mën a nekk la te ci intérêt réew mi la mais bu dee similaire ak saala rek nga ne na ñu dóor bu yàggee boo moytul nit ñi di wëlbatiku sa sa kaw